الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبيانا لكل شيء وشفاء لكل عي وهدى من كل غي والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله المبعوث من أشرف قبيلة وأكرم حي وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala moom mi ñu wàcceel alquraanul karim di ci leeral lépp lu aju suñu dund tey ak ëllëg di it moom alquraanul karim luy saafara bépp jàngoro di it moom alquraanul karim njub goo xamee ne képp ku ci tege mën nga rëcc ci ay njuumte ñuy julli di salmal ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi yàlla yónni ci xeet bi yépp ginnaaw moom yonentu du wàccaat ci ginnaawam moom muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi bàyyi ko ci ngir gu tedd waaye ci gën gi dëkk muy màkkatal mukarram yal nañu ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubam baba yàlla suñu borom di doon suufam si mbokk yi suñu xutba yi tey ñu ngi koy fas yéene amal ci baat bii di ak taqwa di ragal yàlla muy yóbbalu kii aji waaye di yóbbalu it ki ajiwul waaye ba tey di yóbbalu bépp doomu àddama ak foo mën a nekk ci kaw suuf ay ngëneelam ak lu muy tekki bari waa na ko wax gëm yàlla rek te xamul lu muy tekki ak ay simaaram meññent li mu war a jural moom gëm yàlla doomu aadama bi ak mucc ki nga xamante ni dafa gëm yàlla lan mooy ak mujjam ak taqwa mbokk yi di ragal yàlla mooy dénkaane bi borom bi subhanahu wa taala dénk doomu aadama yépp ci kaw suuf moom la dénk xeet wi comme ni mu ko dénkee ci xeet yi nga xamee ni ñoo weesu woon ginnaaw xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla suñu borom di wax ni ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله man yàlla seen borom de maa ngi leen di dénk yéen xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii di ragal yàlla comme ni ma ko dénkee woon xeet ya weesu mbokk yi ki nga xamante ne dafa ragal yàlla almuttaquun mahbubuuna ila allahi taala yàlla nee na daf leen di bëgg inna allaha yuhibbul muttaqin yàlla nee na man yàlla dama bëgg ñi nga xamante ne dañ maa ragal wa ahlu taqwa mbokk yi ñi ragal yàlla ñoom de yasiruuna fi xayaatihim dunya bi nufuusin mutmainna ñoom bu ñuy dox ci kaw suuf seen nekkin ci kaw suuf nekkin gu dal lay doon du ñu ànd ak benn fitna du ñu bari bëgg-bëgg te soxla bu ñu am mu faju lu tax ndax yàlla moo ànd ak ñoom waalamu anna allaha maa almuttaqin yàlla suñu borom nee na xam leen ni man yàlla de maa ngi ànd ak ñi nga xamante ni ñooy ñi ma ragal bi taqwa mbokk yi ci ragal yàlla ba tey doomu aadama bi dafay nekk ci dal du am lu muy tiit wala lu muy ragal ci jamono yi nga xamee ni rëpp na jamono jaxasoo na moom day boobu jaxasoo bu jamono bu jaxasoo ak a rëpp nee na moom ak dal la ci àndal lu tax ndax dafa bokk ci waay yàlla yi ala inna awliyaa allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun alladina aamanuu wa kaanuu yattaquun lahum albushra fi lxayaati ddunya wa fi laaxira mbokk yàlla suñu borom nee na ñii di waay ragal yàlla yi de duñu tiit duñu ragal ci kaw suuf duñu tiit ci seen nekkin fii ci kaw suuf bu ñu demee it bay faatu nee ñu duñu tiit ca la ñuy fekk ji ëllëg nee na it duñu ragal wala ñu am njaaxle ca la ñu war a bàyyi seen ginnaaw ndax yàlla lañ àndal ci fii te bu ñu demee ëllëg yàlla mu ngi leen di xaare aljanna aljanna ji nga xamee ni nag xaalidiina fiiha fala ngay sax abadan yàlla di wax ni wa saari'u ila magfiratin min rabbikum nee na wéy leen ci lan ci njëggalu seenu boroom ngir ngeen am lan wa jannatin aruduha alsamawatu wal ard nee na aljanna jëmalay xaare ëllëg yaatuwaaye moo gën a yaatu asamaan ak suuf boo ko tàllalee ñan la ko yàlla jagleel mu ne uiddat lil muttaqin maa ngi ko réservel uniquement ñi nga xamante ne dañ maa ragal yan ñu yàlla boole ñi ko ragal mbokk yi lii di ragal yàlla ci la yàlla di nattee ki ko gën ki gën ci kaw suuf yàlla moo bind ba pare wutale ñii juddoo fii ñii juddoo feneen ñii xees ñii ñuul ñii gàtt ñii njool ñii am ñii ñàkk waaye yàlla natteewul foofu yàlla suñu boroom dafa woote mu ni yaa ayyuha nnaas waxul yaa ayyuha alladina amanu ay yéen ñi gëm nit ñépp la woo mu ni inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa maa leen bind ngeen dooni góor ak i jigéen ba tey waxul ni góor moo gën jigéen wala jigéen moo gën góor wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu ma def leen ngeen nekk génération ak ay génération génération quatre-vingt gënul génération quatre-vingt-dix waa génération quatre-vingt-dix gënuñu génération deux mille yàlla du natt ci ay génération di leen gënale du natt it ci xeet bi nga bokk xeet bi moo gën bee xeet déedéet mu ni inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën ci yéen fa man yàlla mooy ki ma gën a ragal wa qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi xutba li xaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ ko génnee makkatal mukarram ngir leen rek mooy baatu laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah ñu ne ko doo ko fi waxee doo ko fi waxee di rey ñi ko gëm di leen bundu xataal di leen fitnaal bal ñu egg ba sax ñu ni na exilé waa Madina ak yër ko mu dal ak ñoom ba mu fa nekkee ba yàlla defal ko fa kattan pouvoir mu am mbooloo mu bari wat faa jóge nag dem Madina dem Makkatal Mukarrama di aj keroog ba mu ñëwee ci aj ji moom alayhi salaatu wasalaam mbooloo mépp wuy si ko ndax dafa yabale fépp dal ni damay aji na ma ñëpp wuy si ñëpp ñëw fees dell makkatal mukarram moom alayhi salaatu wasalaam mu war a def ak ñoom discours discours mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de lii la leen ci wax bokk na ci lii may bëgg a wax yaa ayyuha nnaas la wax ay yéen nit ñi kon mooy woote bi yàlla suñu borom woote woon ni ko gën ci yéen ba gën a ragal yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu taxawee yaa ayuhan naas waxul yaa ayuha alladina amanu ñi ko gëm dong ànd ak moom waxul la ñoom kese waaye képp ku fay doomu aadama la waxal mu ni ala inna rabbakum waaxid seen boroom kenn la xanaa du mooy wax ji mu waxoon ñu génne ko ba mu leen dajalee moom la waxaat mooy wax ji dëgg mooy seen boroom kenn la wa inna abaakum waaxid mu leen di xamle nag ni yéen ñëpp yéen a bokk fa ngeen bawoo mooy seen maam Adama alayhi salaam mu ni leen ba tey alayhi salaam ala laa fadla li arabiyin ala ajami wala ajamiyin ala arabi wala ahmara ala aswada wala aswada ala ahmara illa bittaqwa mu ni amul kenn kuy arab ci yéen ku gën ku dul arab amul it ku dul arab di gën koo xamee ni arab la amul ku xees ci yéen ku gën ku ñuul amul it ku ñuul ku gën ci yéen ku xees bi maanaa ki dëkk Màkka gënul ki guddoo Sénégal ki juddoo Sénégal it am alal bu bëri dem Makka di yalwaan nga gis ko nii muy yalwaan leen bul jàpp ne ak gën de ki juddoo États-Unis xees ñëw yéeg ci oto bu rafet romb la nga waaxu jëm ci jàkka ji moom bu mu jàpp ne danga moo la gën de gënu la yow mi fi bawoo dem tamit ci ñoom ëpp leen alal gënoo leen ba tey yàlla nattewul foofu ci muy natt nee na mooy ci ko gën a ragal moo tax yoon saa salaam nee na kenn ci yéen gëmul gënul sa morom dul ci ragal yàlla kon fa mu taxawoon wax wax ji ñu génne ko fa la taxawaat wax ko ba pare laaj leen ni aballaxtu ndax jotal naa wallahi mën nañoo tontu laaj boobu ballaxa risala wa addal amaana wa nasaxa umma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jotal na amul lenn lu mu waroon wax lul wax na ko amul lum ñu waroon a laay biir ci suñu dund tey ak ëllëg lu dul laay biir nañu ko maandute da ko wone ba mu mat sëkk ci maraaxil yépp étape yépp enfance jeunesse ba bi muy nekk di dem maandute la wone bu dee it jihaad jihaatam moom alayhi salaatu wasalaam mook ñoom àndaloon tax na tey jii ñu tala toog di wax laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah mbokk yi ci ragal yàlla ci la jàmm bi di amee lii di fomp ay bakkaar yàlla ko ragal nee na wa man yattaqi llaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zamu lahu ajra yàlla nee na ki ko ragal kii góorgóorlu jóge ci ak ndëngate ay njuumte yu bari ñëw ngir jébbal boppam boroomam yàlla ne dama lay fompal say bàkkaar wa yuzamu lahu ajra ma fay la fay goo xamante ne nag nee na doo xam sax nu mu toll ci ay yiw mu ñëwaat wax moom yàlla suñu borom subhanahu wa taala wa man yattaqi llaha yajcal lahu maxraja wa yarzuquhu min xaytu la yaxtasib yàlla suñu borom nee na ki ko ragal saay bu jamono jaxasoo bopp yu tëju problème yi bari nee na yajal lahu maxraja daf lay utal usi heure da ngay am solution saa su nekk te nee na sa wërsëg du yem ci la ngay xam bu weer deewee sa wërsëg doo xam ne mu toll wa man yattaqi llaha yajcal lahu min amrihi yusra nee na say mbir dama koy def ak jàppandal soxla soo am ma ko yal na ko yàlla defal aqul ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fi misani fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim الحمد لله القائل وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ñu ngi sant yàlla suñu boroom di wax ci alquran ni yow mii di aji màkk ak yow mii toog demoo li ma lay jox comme yóbbal mooy ragal yàlla mbokk yi ragal yàlla de ala sabilil ijmal soo ko doon firi nag mooy lan moom ragal yàlla ci tënk mooy an yajcala bayna gadabi rabbihi wa saxatihi wa iqaabihi wiqaayatun taqiihi minhu mooy nga def sa digganteeg sa boroom fexe ba lépp luy jur ak meram doo ko def lépp lu lay yóbbu ëllëg ci ak mbugalam it doo ko def loolu nag ci ñaari mbir yi lay aju bi fi'li taaat wal qurubaat wal ibaadaat al qalbi wal lisaan wal jawaarih nga fexe ba di topp sa boroom subhaanahu wa taala ci ay ndigalam te ba te jiitu mooy outil bi mu la jox te ëllëg mu la koy laaj ba njëkk mooy mu ne sa xol bi fexeel nga fat ci yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na loolu après mooy wuyu ba sa làmmiñ lu muy tudd yàlla lay doon yiw lay doon say cërit du jublu lu dul ci lu baax ci luy jur ay yiw ñaareel bu mooy bit ci naa bit dunubi wa sayyi'aat nga fexe nag moytu lépp loo xame ni luy jur ay bàkkaar la moo xam looy wax muy wax ju ñaaw wala ci looy dox ci say cër loo xamante ni day jur merab suñu borom subhanahu wa taala fa taqwallahi taala takun ragal yàlla de yaa ngi koy amee ci lii bi luzumi tawxid mooy nga takkoo ak wéetal suñu borom subhanahu wa taala wa sunna ak jàngale yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wajtinaabi shirki wal bida nga bàyyi lépp luy jur ak bokkaale lépp luy bokkaale nga moytu ko ak lépp lu ñu sos loo xamee ni daa lënt ci yow juralu la lul ay bakkaar ke njuumte nee na nga moytu ko wa fi hada al maana ba tey ci maana bii ñuy waxee ragal yàlla benn boroom xam-xam da cee wax ni xalli zunuba sagiraha wa kabiraha fa huwa taqwa nee na moytandiku bàkkaar yu tuuti ak yu mag yi nee na loolu mooy ragal yàlla wasna ka maachin fawqa ardi shawki yaxduruha maa yara yaxduru maa yara nee na nga mel ni kuy dox ci suuf soo xamee ni daa ami dëkk te nga def tànku neen nee na ni ngay moytandikoo dégg ya ngir ñu bañ laa gaañ na nga moytandikoo noonu nga di ay ay bàkkaar yu ndaw ak yu mag mu ni nag laa taxqiranna saxiratan inna aljibala min alxaso nee na gis nga montagne yi ngay seen nee na ay xeeru ndaw ñoo ko ay xeeru ndaw la yu dajaloo bi maanaam bokkaar bàkkaar yu ndaw yi ngay def di ko xeeb mooy dem ba jur ay bàkkaar yu mag te doo ko yëg taqwallah mbokk yi ragal yàlla ngir nga am ko faw nga bari looy jàng alquranul karim taqwallah takunu bil iktisar min qiraati alquran wal luzumi du'a ak ci bëril looy ñaan ndax yo ñoon saa salaam mi ngi wax ni addu'a u ñaan huwa al ibada ci boppam mooy jaamu yàlla ndax kii ñaan li muy sentir mooy daa tële te kenn rek moo ko mën moo mën a faj aajoom mooy yàlla suñu borom subhanahu wa taala loolu dafa yóbbu nit ki ci gëm yàlla wa kasarati tawba ak di bari looy tuub doomu aadama yi ay juumtekat lañ ñuy juum ci juum lañ dëkk waaye saay boo juumee nga profitoo jéggalu yàlla suñu borom subhanahu wa taala wal istighfar di bari looy di di jéggalu ci ay istighfar wal muhaafadati ala al azkar di bari looy tudd yàlla boo ko gis nga tudd yàlla suñu penc mii di Sénégal ëtt boo ci dem fekk nga fa hymne nationalu waa waa penc ma ëttu diine boo dem ci suñu Sénégal Sénégal gii am na man kaka sos suñu mag ñi ay hymne national lañu lañu amoon hymne national du woon lenn lu ñu lu dul lu ñu tuddoo ya tuddee yàlla mooy laa ilaha illallah fi mu nekk ni boo déggoo ma naan xay lallahu la ilaha illallahu la ilaha illallah sa xel day dem fenn ci suñu ëtt yi mooy ni laa ilaha illallah maa ngi loolu la ñu bàyyi la moom lañ daan zikr ndax mooy li feesoon seen biiru xol baat yooyu lañ dem ba yàqu ñun léegi koo dégg baatu laa ilaha illallah du ko tudd normal laa ilaha illallah lay wax laa ilaha illallah mooy laa ilaha illallah romb nañ sax ci yàq gi ñu koy yàq bu ñu koy tudd waaye dañuy dem ba ko déggoo boole ak ay instrument di ko fecc baatu laa ilaha illallah boobu la ragal yàlla commencé woon di dañ suñu xol te yóbbu ñu kon nañ sàmm baat boobu noonu di baatu zikru la ilaha illallah ci bépp jamono nag ak bépp situation bu mu la fekk loolu daf lay jural lii di ragal yàlla ba tey it lii jural nit ki ragal yàlla bi an yara allahu abdahu xaytu amarahu wala yarahu xaytu nahaahu ngay fexe di teew ci bërëb bi nga xamante ni mooy bërëb bi yàlla gërëm bërëbu yàlla jataay jataayu diine yi ñu nga nga fay teew te bàyyi bépp jataay boo xamante ni jataayu caaxaan la taqwallahi takun ragal yàlla ba tey yaa ngi koy amee ci bi ilmi sharii ci xam-xamu sharia maanaam nga jàngi xam xam-xamu sharia xam gu wér ba lépp looy def mu ànd ak xam-xam loolu dina la jural ba tey lii di ragal yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag dakaa tënk ci benn xadis mooy xadisu abdullahi ibnu abbas radiallahu anhu bi mu koy wax ni ko maa ngi lay dénk lii ittaqillah xaysma kunt na nga regal yàlla foo mën a ne say cër sag làmmiñ bu ci tudd lu lu baax bu ci fen bu ci jëw bu ci rambaaj bul rëy rëylu bul wane lépp loo xamante ni dafay jural sa xol bii nii ñàkk ragal yàlla waat bi ay sayyi'a alxasanata tamsuha saay boo defee ak njumte nag bàkkaar nee na na nga profitoo rek nga jéggalu sa boroom ndax inna alxasanat yuzhibna sayyi'at saay boo defee ñaawteef tuub jéggalu ko suñu boroom ndax yàlla rek mooy kiy jéggal bàkkaar da la koy jéggal ba pare bindal la tuyaaba ci ñaan bi nga xamante ne ñaan nga ko mu jéggal la mu ne wax xaaliqi naas bi xuluqin xasan te say jëflante ak nit ñi na nga fexe muy rafet lii la yonent saa sallam dénkoon Abdullah ibn Abbas kon mbokk yi pour nga am ragal yàlla bi yàlla wax ni mooy yóbbal bi mu ñu jox moo xam yow mi dem màkk war a fekk ji ay xeet yu wuute ci jamono yoo xamante ni jamono yu xat lay nekk nee na na nga taxoo ragal yàlla mooy tax ba doo dugg ci rafas ak fusuuq ak jilaal doo xaste doo saaga kenn doo merok kenn doo def lu dul ak yiw ndax lépp loo wax ak nga def ko ci lu baax yàlla ne yaalamuhu llah maa ngi man yàlla maa ngi ni jàkk ci loolu ngeen di def waaye muy yóbbal ci ki demul ndax nit ki fu mu mën a ne ci kaw suuf ñaar yi bu koy sàmm muy sa diine ak sa ngor jàppal ne fu ne mën nga faa nekk ngir nga am lii di ragal yàlla ak ngërëmu yàlla rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى الصلاة يرحمنا الله